asalaamaaleykum mbokk internet wu dakarnet.com comme ni ñu ko defee saa su nekk tey nag dañoo ñëw ci émission bu bees euh, bi ñu naan leenoo di ku ñuy dalal yaakaar naan ko présenté fii ci Sénégal muy euh, Ami Collé euh, ñu def ak lu dul mu nuyoo après di ko moom ci waxtaan Ami Collé ñu leen di dale ziar. fay naa leen di leen si ziar di nuyu ami téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp di am contentement ak mbégte di dal tey ci bile émission. Mm-hmm. d' accord ni noonu kooku mooy Ami Collé lu ñu def rek dugg waxtaan ak moom. li ñuy njëkk waxtaan rek mooy li gars di laaj mooy euh, euh, saison 2 euh, doomu gaynde doomu gaynde saison 2 bi bientôt incha allah yàggatul sax. Mhm. maas mi ngi ci bu baax a baax. Mhm. xëy na peut-être xale yi ci nekk dañuy jàng. Mhm. donc dañ doon xaar rek peut-être dugg ci vacances yi. pour mun ci xuus bu baax a baax. bientôt rek incha allah rabbi ngeen gis deuxième saison bi. d'accord ñu gis doomu gaynde ñu gis ay xale kese moo ci nekk te ay encadré ay xale yombul. Mhm. ñu laaj yéen naka ngeen di dundee ak xale yi bu mën a def euh, expérience boobu ci moom bañ koy doxee ba képp koo xam ne sax kilifa day toog mën leen seetaan. waaw bon parce que travail d'équipe la. Mhm. Euh, xam nga liggéey moom bu fekkee ñi ñi bokk liggéey bi seeni i xol ànd na. Mhm. seen i xol set na. te ki jiite liggéey bi moom tamit euh, nekk nit ku baax. Dimanche bu level pro ma koy nuy bu baax a baax a baax a baax di nit ku neex a liggéeyal. Euh, donc moom xelam rek doyu ko. parce que day mmh. partagé ak mmh. donc liggéey bi compliqué wul benn yoon. Mmh. te it mu nekk nit ku am expérience ci milieu bi mu nekk. yàgg ci def ci ay gëstu. dem jàngi ci lu bare bare bare bari. kon yaakaar naa ni encadré ay xale du nekk loo xam day jafe ci moom. aussi tamit ñu gis qualité image yi nu mel dañuy xaw a sax jox comme image yu démb loolu ndax ngeen koy euh, euh, liggéeyee ba nga xam ne bu génnee day am qualité. loolu moom côté technique bi la. xam nga man nag je suis mhm. donc du coup côté technique moom lu ma la ci wax rek mhm. wax naa contraire ba de. contraire mi ngi noonu moom nee na lu mu ñu wax rek wax nañu contraire duñ def rek euh, duggaat fenn euh, gis nañ jamono ji théâtre nu mu demee bari na coow théâtre démb ak théâtre tey naka nga ko gisee. mais boo xoolee théâtre démb ak bu tey différence bi bariwul parce que déjà. Mhm. Euh, démb lañ doon def. xëy na tey dañ cee sottiwaat tuuti cere rek yokku ñeex. peut ci qualité yi image parce que ñëpp xam nañ technologie dafa développé mhm. donc côté qualité image la ñuy wax wala côté jeu mhm. wala ban côté mhm. ngay ngay pose question bu dee image la technologie dafa développé donc ah. du coup il faut image yi am tuuti changement côté décor bi aussi dafay am changement parce que meuble lu barki démb ak euh, suñu ñoom maam ak Jean ak bu tey am na y a une grande différence tey li ñu gën a valoriser ci théâtre yi mooy luxe bi Mm-hmm. te te ku ne xam ne ne Sénégal dafa bëgg luxe mm-hmm. mais boo xoolee différence su doomu gaynde ak yeneen film yi mm-hmm. parce que doomu gaynde dafa indiwaat beneen style bokkul ak style bi nga xam ne moom la ñu nekk di imposer Sénégalais yi actuellement nii mais théâtre dem ak bu tey seen différence bariwul mais bu ñu nee euh, euh, différence mooy que ni comme gis nga léegi série bees du ci am presque sax dañ naan pornographique lañ ciy joué comme euh, cercle noir bi ngay wax noonu ñooñu moom ay def parce que dañoo génn seen cër ñëpp di ci teg seen bët naka nga ko gisee Circunan naka laa ko gisee Circunan wax naa ci waxati ci man Circunan lu ma gën a méttee noonu existé wul ci àdduna mais tamit est yoon yéen ngeen xam yéen a nekk ci kaw toog waxtaan ba tey ji lépp luy génn ci coo xam ne ci wàllu télé la wala ci wàllu site internet ci réseaux sociaux yi ngeen taxaw xam xool ko seetlu ko parce que seen image dañuy yàq parce que bu ñu nee théâtre rek yéen ñëpp dañ leen ci seen bopp lañu yàq lu sa bopp parce que mhm. xam que ni métier bi suñu métier ñu ñëpp ñoo ko moom mhm. amul bunt bu mhm. ñuy tëj mhm. parce que ñàkk bunt boobu moo waral ñu dugg ci ba def tey def lu leen neex mhm. ba ñu bu ñu demee bay monopoliser théâtre naan baax nag baaxul wala ñu ngi ciy commencé di gis yoo xamante ne vraiment tegginuwul wala rafetul wala jaaduwul parce que moo lay wan ni amul bunt ndax àdduna lépp lu am bunt ñu koy tëj dinañ xam kiy dugg ak kiy génn parce que loolu li ko waral mooy mobilisation moo ñàkk ci ñun genre jéemuñu mobiliser wu suñu biir. doon benn doon benn. loolu laa lay expliquer pour mën a xool. Mhm. li baax ñu mhm. jël def. li bon sa kenn du ko sànni dañ koy defar. Mhm. ndax àdduna booy def lu bon nga sànni. dootoo dese lu bari. mais dañuy defar. ndax sama sëriñ bi Baye Galas Mbacke doomu sëñ Tàkku mu sëñ Fàllu daf ma naan euh, gerte boo ko jiwee. ci suuf. boo jeqee. dina am ci ay yenn benn benn yoo xam day yàqu. mais benn benn bi yàqu boobu doo ko sànni. da nga koy jël. def jafar ko mhm. xool liñ ci mën a jariñoo mhm. def ko gerte noflaay mhm. pour ñu mën di ko jariñoo di ci togg ay mbaxalu saalu mag di ci togg ay euh, sombi gerteeg di ci togg yenn àdduna du lu bon ñu sànni léeg-léeg dara bon nga defar ndax suñu borom rek mooy defar te lépp looy defar te ànd ci ndimbalu suñu borom mën na baax mais su fekkonte ne ni tey suñu encadrement baax na ñi ñu jiitee am na fenn fuñ ñu teg kon am naa yaakaar ni am naa yaqin ni fii yëf fi toll tey du fi toll d' accord mi ngi noonu kooku mooy Ami Collé yaakaar naa ni dégg ngeen lu mu wax message am na solo macha allah duñ def rek du dul duggaat rek ah, ci waxtaan bi ah, naan di leen waxtaan aussi leen ne di fi la lépp di xewee buñ jógee foofu mooy Ami Collé appartement ya temps yi gis nañ ne ci jamono été bii nii xale yi jigéen ñi xale yu góor di bokk euh, même appartement naka nga ko gisee. appartement wu lan. apartement loué appartement ak sa copain nekk fa fanaan fa. loolu booy blâmer da ngay blâmer ñi nga xamante ñoom ñoo appartement parce que tey man mënuma concevoir yow nga am mm-hmm. ndey am baay am ay rak am lépp. Mm-hmm. ak loo bëgg bëgg bëgg xaalis. Mm-hmm. sa appartement meublé ki nga koy jox. mu di fa dëkk war nga ko demande d'abord pièce d'identité mu jox la. koo xool pièce d'identité di nga xam ba xam am na at bii wala amu ko. bu la présenter pièce d'identité boo xamante ni moomu ko. war nga ko mën na xee moom na nga ne ko lu yéemu la. mais gars yi léegi ñoom seen xaalis la ñuy waaw ah. foofu la Europe bi am mi ngi mel ni comme location oto yi rek c'est pareil mhm. au même parce que tey da gis yenn xale yoo xam mhm. ni ay mhm. ñaari xale te ay ci biir bi dama ne waaw ñun ci ban monde lañ nekk parce que xale yi seen âge permetté wu am permis de war a mën a dem di louer oto xanaa kiñ koy louer dafay xale dañu yónni mag voilà man daal comprendre ma en tout mhm. bi nga xam ni moom la xale jël léegi kon su ma la déggee daal mooy que ni maam ñi koy luwee ñoom ñoo war a xoolaat bu baax la ñuy def mais yow sa alal mhm. yow mi koy luwee mhm. war nga mën a xool ci ban condition nga koy luwee ak lu alal bi neex neex neex neex neex loo yàkkamti yàkkamti jël sa appartement di ko luwee war nga mën a xam ñi ngi koy luwee la la parce que bu fa crime amee yow tu sa yow yow yow ci part de responsabilité yi nga bokk. d'accord te on sait jamais. parce que bu dee ay xale yoo xam ne xamuñu dara. Mhm. nga jël sa appartement meublé jox leen ko. Mhm. ñu ñu ñu programmé ko VSD vendredi samedi dimanche. Mhm. xale yi su fekkente ni nekkin bi ñu fa nekkee. du nekkin boo xam nekkin bu baax la. mën nañ jël lu nekk parce que xale bu xas ba génn rek dafay am âge boo xam bu ci nit tolloo. da yaakaar lépp lu mu gis rek war na ko war na ko mën a mën a mos. waaye bu mosee lu bon. lu bon provoquer histoire wala mu mm. provoquer scandale ci appartement bi ñu nekk. Mm-hmm. ñu dem ba lu nekk am ci yow mi ku lu appartement bi da nga ci am part de responsabilité. te aussi gis nañ lépp vidéo yu bon yëpp ñu koy mm-hmm. mm-hmm. léegi seen i borom dañ ko tabax def ko appartement meublé. mais am na ñoo xamante ne ni ñu responsable ñoo xamante ne ni seen appartement. bala dinañ xam ki ñu koy la. ak ban condition la duñ loué sax ay benn fan. am na ñoo xam ne seen appartement meublé ay cinq jours lañ koy loué wala une semaine mhm. wala weekend prolongé mais ñu ci bari mhm. pour bañ utiliser benn xaalis boo xamante ne nii mën na rax seen xaas pour def ci nag su dul noonu mhm. dañuy préférer di loué cinq jours wala loué quatre jours wala liggéey une semaine jëm kaw d'accord loolu yaakaar naa ni ah, leer na te lu ñu amoon ci ay minutes jeex na te yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo lu ñu def rek loolu jox la ah, ah, nga tàggatoo ak mbokk internet Dakarnet yi doon seetaan fii. merci beaucoup xanaa di kontaan bu baax a baax rek di toog fii. Mhm. Euh, waaye di leen wax ne leen aussi suñu série boobu di Duman. Mhm. mi ngi ci yoon moom tamit. deuxième saison Duman mi ngi ci yoon incha allah bee passé 26 épisodes lañ leen indiloon. Mhm. bii fas yéene nañ a baax madame Cheikh Mbaye Guèye borom CMG Info. Mhm. sama sponsor leader boobu maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu sama fans mhm. tout le monde bàyyiwuma kenn di nuyu tamit seen bi nga xam ñoom ñoo ma dalal ma di leen nuyu bu baax a baax. Mhm. d'accord mbokk internet yi mi ngi noonu tey yaakaar naa li leen andiloon neex na yéen ko doon laaj ah euh, amiko la tey mi ngi nii ñu daaloon ko suñu euh, émission euh, les Noddi du leen wax di daje ak keneen rek incha allah di gërëm sama techniciens yi nekk ku ñu mel Abdou Khadir bisu maa ngi lay gërëma ah, ak Iyas maa lay déglu baax a baax ak sama sama xayir bii di njéeme jaajëf.